ak cat sew cat moo sew rek waaw mais ñun du ñu ñaan yàlla rek mooy am gëm-gëm am yaqiim suñu bopp gëm xam ne yàlla mooy sàq bees-bees la rek waaw di ñaan yàlla bi nga xamante ne tey mooy saafara mu saafara lépp parce que ñun si ñaari ñaari côté yëpp lañ far si ñaari côté yëpp suñu famille la waaw ki def affaire bi xale bi doomam la moom bokk na si li gën a sës si doo xale bi xale bi fu mu nekk dañ koy woo ne ko wax sa waay parce que ay waay lañ waaw kon erreur mënu ñax waaw nañ nangu rek xam ne yàlla def bakkan nag dafa foor waaw bakkan dafa foor waaw mais ñun lépp loo xamante ne wasu àq la wala luy luy indi jàmm la ñun si tànk yooyu la ñuy dox si tànk yooyu la ñuy nekk waaw parce que bu lépp amee ba léegi ñoo ngi dox fépp fu ñu war a taxee foofu la ñu taxee lépp lu ñu war a dox dañ koy dem dox combat combat bi amul nga gis euh, dogal yi nga xamante ne CNG jël na ko ci daal di jox ki nga xamante ni mooy Garga de victoire loolu tamit ana lan lan lan nga gisee ànd nga ci wala. non man eggaguma foofu man waxuma sa si làmb li ñu métti nii laay métti lu moom laay wax waaw di ñaan yàlla mi nga xamante ne tey kii génn ànduna yàlla xare ko ci àjjanay kawe waaw may waajuram bu jigéen xolu muñ may waajuram bu góor xolu muñ waaw ñun ñii nga xam ne ñun ndaw yi nag Eh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu jógaat xoolaat suñu taxawaay xoolaat bu baax a baax a baax a baax parce que nit a ngi dee nit a ngi dee di dox. loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne saa su ne dañu koy wax écurie Lansar nee nañu saa su ne dañu fay gis ay accident yu fay am incident gis nga sa combat bi mujj li ko avorté ku ne gis na ko loolu sénégalais yi jàpp ne dafa nekk ci biir écurie bi est-ce que laajul tamit ngeen taxawaat beneen taxawaay boo xamante ni dina am lu ngeen defaraat ci biir écurie bi. non écurie bi jàmm moo fa nekk jàmm ak salaam moo fa nekk.